مشتق معي الوهابية ونفيها بتقليد أئمة المذاهب من دقة كان فوحمنا من بجا معنا نعم مكونا من مذهب مالك لك ولا مذهب حناشي لك ولا مذهب لك مملنا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 بنا اللي أكد إن أي سنة جنن ولا وهابي ما أنا نعم سنة فا وهابي فا ممل لي نيت ني ني باري باري داني جوم بو باخ باخ سي مثلا سني دو سني دو سني تفك دانك سنة مبلنك خمسة بار بارك كدو كورك مونيح سن لامي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 du nekk pëstéef waaye bëgg a dolli ko la ndax am na ci imaam yu mag yooyu dama yi la wala euh, Hanbali mu ne bu sañoon bu taseeg moom dana ko may chance yu juróom-ñaar mu mu ndax mu dolli bu ko bëggee yee ko may chance juróom-ñaar mu yay ko ndax mu dolli ne ko sunna sunna dañ koy wax rek waaye kenn ku sunna ba jël ay xar ci ginnaawam di ko sàmm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 mu mel ne ñi koy wax ñoom ñëpp naan ay sunni yoon lañ déedéet ay waxaabi yoon lañ li ko waral mooy bari waana ku taxaw fi naan ab sunni la te fekk wala kilifa diine la bu siiw sax te fekk ñu ko mën ab sunni waaye ab jaahil sax lay far la la la gën a jege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 شر أمتي رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك صلى الله عليه وسلم واجو خم بعد خني مانشي يوم تسيك نيت بنن ويكت ويات وحي ينتبه صلى الله عليه وسلم فساد كبير عالم متهتك فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك لهما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك ومن لك وطن دنكو أي مندرقة أك أمتل بقنا جا مندرقة يا أبسيكين سيكين بقدو بقدو أكي خاص ci benn waykat ne woon na kam lexyatin kam lexyatin taalat ala diqri jahili wa ma taxtahu teg nañ ko ci ay yére yu gàtt mbubb mu gàtt moo xam ne ci wóom yi lay sol dal li eh, ay dal dal ak i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 لتي أبنك بفدس الوضع وهاديون دي سقل سين سكن يصل أي ريوح يتكس الوضع أي كاليوح أك يعني مال تفك لن تجيب لما ينجر ينخمنا لنكو لولا دي وحدد يالله بوكو تك لن يوحون لما يسلنا دكري سنة دي لن يوحون لما يسلنا دكري موي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 tamit dox diggante ak yàlla rek wala xidma la tudd tey dox diggante tamit jaamu yàlla ba nag mu di ko jaarale ci nit yooyu yëpp daf koy def na mu ko war a defee te du ca wàññi dara ñu wax ne tam sunni yi des na ko xam ci des na ko mën a xàmmee ci taxliya taxalli bi taxalli عن الأو... عن الأوصاف الذميمة أو الأحوال الودعة الوديعة والتحلي به بمحاسن الصفات ومكارم الأخلاق noonu ma gën a noppal kat dañ koy gën a xame ci bàyyi lépp loo xam ne lii melokaanu wuñ santaane wut la walla euh, lu ni mel ci sot jëmmam ja marale ko ak lépp loo xam ne di ko rafet la bokk na ci ab sunni itam nuñ koy xamee mooy fu mu day woote day woo nit ñi dina jëme ci yàlla te di ko jaarale ci ak xereñ gu ma sëkk du ne diw ab yëfër nga ku defut nangam yëfër nga nga gedd dem mu dem du ku ko defut musrik nga nga dem mu dem du ne ku ko defut ab nga dem mu dem ba tomb yi ma waxoon jeex kon euh, daal ci gàttal mën na ma yem foofu rek buntu bi ci desoon muy euh, lan mooy jokku bokk euh, ayub sat rahim yaakaar naa ne mat naa taxaw tuuti ba waaw kon gannaaw laaj daa bari naa ko jàppal yëdda